waaw léegi dañuy ñëw ci combat boo xam ne waaw euh, Vox Arena moo ko tëgg. Mm-hmm. muy ñaari mbër yoo xam ne defe naa xam nga leen xam nga Garga 2 xam nga Mama waaw xam naa leen bay. ñaar ñu seen combat amateur yi dañ koo yàkkamte parce que dañu jàpp ne foofu bëri piir nar na faa feeñ yow ngay bëree kat. <laughs> bëri na fa am xeex na fa am mais ay bëri yu gaaw la na am xeex na fa am. Hmm. Mama Lamine gaaw na am na rapidité am na force. Hmm. Garga am na rapidité am na force. kon donc combat boobu ku gën a liggéey rek ku gën a yokk sa force gën a yokk sa rapidité non mun nga daan sa moroom jël bu gaaw mhm. am nañ ko ba pare ah. mais ku gën a yokkal rek am nga ko làmb moom bu kenn wax na diw moo ëpp doole diw diw moo doole diw xam nga lu tax bu ñu simmee ko parce que xam nga sport léegi dafa garaaw da nga gis ñoo xamante ne bu ñu tegoo ci yoon am moniteur bu baax ñu leen di entraîné nga gis ko daaw boo ko gisee ren doo ko xàmmee donc loolu dafay bokk ci sport mun na yokk doole maama maama lay mun na yokk doole garga de mun na yokk doole donc tant que ñoom différent bi ñuy def ay signature face à face bu njëwee ba simeeku ci ngay xam ne kii moo ëpp kii doole. kii moo gën a pare. ñoom ñaar ci côté bëri boo leen doon jàngat kan moo ëpp kan moo avantage ci bëri ñoom ñaar. ñoom ñaar ñëpp parce que ay bërëkat lañ de ñoom ñaar ñëpp ay bërëkat lañ. xeex bi ñuy wax nii sax demewul noonu ñoom ñaar ñëpp du ñuy xeexkat ay bërikat lañ moo tax mooy la force ba rapidité bi ñoom ñaar ku ci gën a liggéey sa morom rek mooy loolu Mama Lamine am na loo koy moytuloo ci Garga 2 ci biir bëre boobu hmm. lenn koy moytuloo ci ci Garga 2 hmm. waaw bu dee Garga nag bu dee Garga 2 tamit amul lenn ma koy moytu ci ci hmm. Mama Lamine waaw ñoo bokk benn bëre ah waaw ngi koy gën a gaaw la ak force la rek non doole du fa feeñ doole du fa feeñ gaawaay bi daal force ak rapidité. moo fa am solo. li ngay li ngay def gaaw. waaw parce que ñoom ñaar ay bërikat lañu. li ñuy def dañuy gaaw. maama Lamine si nga saan nga combat mujj bi. waaw gargo si tamit saan nga combat mujj bi. donc voilà. ay lañ de ah, ay bërikat lañ. ok ban combat. waaw ah, mu ngi fi. mu ngi ah, sama frère. maa am na combat yàgg na ko am nag combat moom yàgg na am combat. mais bii est-ce que gën a pire. non xam la rek c'est gars yi ñoo naan bii moo gën a bii moo gën a combat bi ak bee yemuñu combat yëpp parce que boo nee Babacar ak Lamine dañu benn voilà. Babacar ak ah, ci jëflante de benn lañu moom ak ci ànd moom benn lañu. waaye njool na nag ma gàtt. <laughs> Ah, mu dëkk Loro mu dëkk ak yaay. Ama Baldé Modou Lo nga wax léegi nga ne ko ana Ama. bala ana ama la Lamine laaj de. waaw ah, man la ama mu fi. mu ne la am na bés. Ah? am na bés. waaw yàgg na ko am nag. waaw miin na bés aussi yàgg na ko am. Mhm. bés yi benn la. nag mënut a weesu loolu bés. waaw bés bu nekk bés lay xaar. maanaam. bés bu nekk bés lay xaar. maanaam Modou Lo ak Ama Balde ñu doon bëreel benn la. Ama Balde ak Modou Lo. du ñu benn. Modou Lo Ama Baldé du ñu benn. mais bis si laa la benn lañ Ama Baldé Modou Lo ñaar ñooy bëre. ñooy bëre mais adversaire yi benn lañ la waaw du ñu benn Modou Lo tamit adversaire yi mu doon bëre ak Ama Baldé du ñu benn. Ama moo ko ah.

ñeme na entraînement gëm na lu muy def maanaam Pikine topp ci ginnaawam ñëpp yéen ko roi des arènes donc foofu moo tax ma xelu loolu. Ah. Ama daal moo la gën a dangereux kon de Modou am na solo. waaw ah, Ama la gën a dangereux. moom gën a dangereux moom. Ama ak Giri bu gën a dangereux. ak ak Giri. ñun ñëpp laa leen a Giri kon nag. Giri boobu waaw non xam nga adversaire yi bokkul na ko si. adversaire yi bokkul bokkuñu façon bëri. Ama day xeex day bëre te lépp loo yaakaaru ci bëri da koy def donc moo tax moo xelu côté boobu te am na ñoo xam ne da bëri yow dañ lay xaar mais Ama moom yow moom day ñëw bëri war na li mu am war na li mu bugg te moom da koy jël si loolu genre bokkuñ. Hmm. waaw hmm. stratégie bi doon andi yow contre Marignan contre Tapha contre Zos contre Basco est-ce loolu nga koy sant mu andi ko contre Mawla. arbitre bi loolu nag bon. li ma koy diggal man moom ci côté entraînement bi ak ci côté contact yëpp dinaa ci ànd ak moom def ko parce que leb bor fay bor naan loolu loon jëflante ak man noonu la ma jàppale ci yu bëri bëri bëri wax yàlla mais loolu nag suñu mag Jules Baldé comme muñ ci gën a xarañ moom mooy bi lépp li nga xamante ne rek xel la ak xalaat la bu sell Jules dina ci waxtaan ak moom ñu luñ ci dolli rek lañ ciy dolli mais Jules lépp li nga xamante ne war noo ko wax rek di ko xelal nii ngay def ak nii ngay def Gilles moo yaa ci lépp nag wax dëgg yàlla no entraînement avant sama combat yi presque yi ma mujjee génn yëpp ñooy bokk di entraîné hmm. waaw yëpp ñooy bokk di entraîné. kon combat bi da nga nar a fas yéene takk sa ngemb di contact ak moom di dem ak moom saal di dem ak moom dindi. ah mu ngi ñëw saal ñooy bokk saal fii. Hmm. Mhm. te dafa teel a ñëw dem rek mais ñooy bokk saal. yéenay bokk saal bi presque chaque jour. Mhm. day ñëw wala tey mu guddee. wala tey man ma guddee may ñooy bokk saal. am na ñoo xam ne xam nga Lamine laaj la ko sax am na ñoo dañ ne Ama adversaire yi Moussa am kii moo ci gën a dangereux yow am na nga ci loolu. waaw xam nga Ama Baldé ba leen fàtte ne bëri na fekk Tapha mun na xeex mun na bëri mun na doon yor taay boo xamante ne aussi tamit bëriwul ci ci làmb ji il ñu xam loolu aussi waaw ah, te bëri na ñu dàq bëri bëri na ñu mën a bëri Tapha Tine rek bu ko seetaan rek xool Tapha seetaan Ama Baldé xam ne Ama Baldé bëri na ak champion ak ndaanaan loolu rek doy na waxuma la nag ñi si des. ka muy bëreel loo xam ci moom comme ku bëreel la gëm na lu muy def mën na lu muy def te fonk na gis xam naa ko ci moom te respecté na lépp li nga xamante ne war na ko def ci làmb rek respecté na ko. lan moo lu koy daan bëri rek koy daan bëri sa entraînement yokk sa force. ànd ak say mbokk gérer bis bi bañ a bis moo koy daal waaw bañ caaxaane bis moo koy daal. ku am moom bis daal tàkkusaan moom da nga ko ci côté yëpp. waaw moo ci côté yëpp ah da ko war a waajal ci côté yëpp ci entraînement ci récupération ci ànd seeg say mbokk noppalu gérer bis bi ci bis bi. gérer ci gérer bés bi ci bés bi. waaw gérer bés bi ci loolu ay wax la de. Ah, waaw bés bi ci bés bi Lamine. Ah, parce que ko ndax bés bi ci bis bi. loolu moo tax. parce que moom daa mel ni bëreeg moom ci su ma la gisee kër bi ngay bëreeg moom dafa mel ni daa laaj daal de wala. waaw mais xam nga bu fekkee ne ki ngay bëreel dafa bëri ay ruq wala dafa bëri ay ay pax quoi ah, <laughs> donc dal moo la ci génnee quoi. waaw donc da ngay dal xam li nga war a def. nëbbu ko sa lépp nag. Mm, doo ko wan sa lépp. waaw non non bisu làmb doo ko wan dara. waaw mm. Modou noonu la ñuy bëree moom. ah man de noonu laa bëri moom. <laughs> loolu ngay wax Ama mu di ko def. man noonu laa bëri moom te Ama kon am na encadrement am na saf yu bëri moom Gilles dinañ moom mooy loolu Gilles magum làmb la. Modou dégg naa ko Lamine ci conférence de presse am mu ne ko duma ñeexub ñebbe nag ci bàyyi xel bi ci des am na ñoom dañuy wax ne Ama bu combat bi yàggee du ko du ma ñeexub ñebbe jooju Modou wax Euh, ak combat bu yàgg bi ñeneen du arrangé Ama. waa xam nga àdduna moom looy gën di dem rek Ama ba ba ñu ñaan dafay gaaw a sonn ak du sonn yëfu xale la rek kontaan nga gën a métti loo gis rawatina nga bëgg dem diin dem géej sëfu dem musculation def long et doux donc loolu mënoo ko di préparer combat ñaan da gaaw a sonn. ba ci sama combat mujj bi sax am na ñi nga toogaloon ñi naan Balla sonn na. waaw waaw waaw gaa yooyu yaa ngi ko doon dégg sama reportage. waaw naan Balla jeex ma ne ma ne leen ah man dégg ma ku jeexal ak ku jeexalu. xam nga xam nga loolu daal ñu nga ca contact bu métti. waaw parce que xam mosuñu dañuy ah, ah, <laughs> amoon seen mbër ne ca ginnaaw ne ci micro naan Balla jeexal na maa nañ leen xaar ba ci kanam rek. xam ne comme par exemple tey lamb bu njëkk ak site internet yi mhm. ak lamb nu mu développé daaw ñu gis combat Balla Gaye bu yàgg yàgg yàgg. waaw donc daaw ñu gis combat Balla Gaye bu yàgg yàgg. bu daan gis combat Balla Gaye bu gaar pour ñoom. day ñëw lijjanti la rek fekk amul condition wala nangam loolu lañ yaakaar. te fekk mbër bu waaja lépp nag wax dëgg yàlla. da ngay lépp waaw. maa ngi gërëm ñëpp nag di gërëm Aziz suma papa. suma frère mbay Diop Talla Meng Modou Fall Simon. Thierno sama xarit suma mag suma lépp. Mohamed Ali maa ngi koy sant di ko gërëm Ali Ndiaye musa ah, Moussa Fall maa ngi koy sant di ko gërëm ah. gii maa ngi koy sant di ko gërëm Coach Thiam maa ngi koy sant ko gërëm Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi koy sant ko gërëm di gërëmaat sama mag Sakees suma frère sama waaw damaa <laughs> sama rakk Sakees maa ngi koy gërëm lees numéro 2 Pape Mama Fall Andaw Ndiaye Pape Sané école de lutte Balla ah sans dépasse su may kilifa rek bu Aziz pare rek man pare naa. kon di nga dem INSEP. ah di waaye yaakaar naa ko de bu ma juumul. mais comme man dama may kilifa nekk ci ay loxo. ah bu ma pare nga rek pare naa.